dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen i kaay ñu xëyandoo yéen i kaay gii di réew mi quotidien L'As Les Échos Vox Populi enquête source à la tribune libération yéen i kaay yëpp xëy di ñu tàggee Babacar Touré Babacar Touré nekkoon ab journaliste boo xam ne bu ñu ràññee woon loolu ci réewum Sénégal enquête yéen i kaay na jamono ji kay mën nañoo wax ni ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci mbirum tasum xibaar ñoo ngi ci dëcc yéen i kaay gi di moom mu xëy yokku sa ne Babacar bokk na si ñi nga xam ne ñoo sos groupe de communication bi di sud communication yéenekaay gi nee na Babacar Touré ay atam tolloon na si juróom benn fukk ak juróom-ñeent bi muy dëddu àdduna yéenekaay gi de Les Échos nee na journaliste bu mag bii di Babacar Touré mbooleem ñi nga xam ne ñoo def ay témoignage ci moom lu baax rek lañ ci wax maanaam ab journaliste boo xam ne ab liggéeyam daf ko doon teg ci yoon ma jambal jaañ wax ne Babacar Touré maanaam moo gënoon a nekk kàngam ci mboolem ñi nga xam na ñoo doon yëngu ci métier mi yéenekaay gi nee na kàngam gu rëy daat dem ci lu jëm ci mbirum tasum xibaar journal bi nee na covid 19 moo ko yóbbu tëral na ko lu yàgg hôpital principal maanaam li nga xam ne moom la mujj bind ni ab contribution ci lalu hôpitalam la ko bindee yéen kaay gi di Vox Populi mu xëy di ñu xamal naan ñu kàngam bu mag garab gu mag ci ëttu tasum xibaar yi daat nay dem yéen kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Alioune Badara Cissé médiateur de la République moom nag ci don bi nga xam ne doon na ko amal samedi bi ñu génn yëkkati na ay kàddu wax ci déclaration patrimoine bi nga xam ne njiitu réew mi di président Macky sal sant na ko ay ministre ndax am na ay ministre yoo xam ne ba léegi nii defuguñu moo taxoon njiitu réew mi di Macky Sall may leen ab app Alioune Badara Cissé nee na ministre yi nga xam xamante ni dañoo lànk kandaare bañ a def déclaration patrimoine dañu leen a war a dàq ndax nag mënuñoo nangu jël sunu alal jox ko ay nit ñoo xam ne dañu koy saax du ñu ko def te nag obligation de transparence dafa war a am ci mbir mi maanaam par force ñi nga xam ne ñoom lañ dénk suñu alal ji dañ ko war a leeral jaarale ko foo xamante ni fu leer na ñi lay doon te képp koo xam ne maanaam yaa ngi dugg ci ab gouvernement di yor poste ministre wala loo xam ne dénk nañ la alalu askan a xam sa la génn ñu xamaat ko xam ba xam njubla nga wala njubla ngoo ba tey ci biir yéen kaay gi ñu fekk fa Birahim Seck bu Forum Civil moom nag bëgg na lu leer ci fondation Servir le Sénégal bu Marème Faye Sall Birahim Seck ne fondation Servir le Sénégal dañu ko war a auditer maanaam càmbar ko ndax njort nañu xaalis bu bëree bëri maanaam moo fay dugg ak moo fay génn yéen kaay gi du source a xëy duñu xamal laan ñu Moustapha Cissé Lo is ginnaaw nag ay ay bés yoo xam ne maanaam kenn dégg ko ginnaaw bi mu fi tifaaree ay saaga journal bi nee na xalif général des bi Serigne Moussa Nawel waxtaan nañ ci lu yàgg-yàgg laas yéene kaay nee na am na juróomi xale yu jigéen yoo xam ne dañu leen a jàppoon ca Touba waaye nag daat nañuy feeñee ci Ndakaaru Kër Mbay Fall yéene kaay gii di réew mi ko dëjee ñu xëy fekk fa Modou jaañ Fada mi nga xam ne moom lañ dénk Sonacos daan nay wax ne Covid 19 bi daan nay laal kër googu di sona Sonacos li nga xam ne moom ñoom lañ xayma woon xam naa ne dina am ay coppite ndax nee na 2019 bi amoon nañ chiffre d'affaires boo xam ne toll na ci 38 milliards jàpp na ne 2020 bi maanaam duñu ko am ndax jànkonteel nañ ak i waaye nag jafe-jafe yooyee taxul ñu am benn problème ak ab fournisseur wala a personnel yéen kaay gii di Dakar Times mu xëy di ñu xamal lan ñu ñi nga xam ne ay activiste lañu ak bokk ci société civile bi ak opposition bi dañuy faral di gis ne dañuy ñaawlu bu ñu daggalee suuf kenn koo xam ne ab sénégalais la te nag lan moo tax ñooñu bu ñu daggalee suuf ñoo xam ne du ñu ay sénégalais maanaam duñ ci wax activiste yi dax ak opposition bi bu ñu déggee ñu ne ab sénégalais daggal nañ ko fenn suufa ñoom ñëpp di jóg di mbel mbeli waaye nag bu dee nag ay tubaab lañ ko daggal kenn du leen dégg ca wàllu woowu ndax ñi nga xam ne ñooy armée française maanaam daggal nañ leen ay hectares yu bare bare bari ci ndakaaru te amul kenn koo xam ne dégg nga mu wax ci te nag suufu ndakaar moo ëpp njariñ fuuf suufu ndengleer ci nga xam ne maanaam kenn ku nekk dégg nañ ko mu wax ko yéen kaay gi di vox populi xëy di ñu xamal lan ñu askan wi nga xam ne ñoo dëkk Kër ma saar di marchand ambulant yi ñoom nag dañoo mer ba maara day taal yi ndax dañu leen doon tere ñuy jaay ci wetu tëli bi ci rond-point Kër bi ginnaaw bi ñu leen fa jëlee maire bi moo def lu ni mel la ko waral mooy dafay bañ ñu dajaloo ngir woppi coronavirus daal di law loole nag moo naqari marchand ambulant yi loola ba ñu dem sa mairie ba daal di caxte caxte yàq ko yàqee daal di taal yéen a kaay gi di estat mu ñu xamal la dafa am norme yu yees yoo xam ne waa CAF dañu ko jël ci infrastructure yi nga xam ne si la ñuy defee mbirum tàggat yaram te Sénégal soo muy tuulee dina sa am ay jafe-jafe maanaam ci estatam yi ndax nag am na ay match qualification coupe du monde coupe d'Afrique soo muy tuulee Sénégal ci biir réew mi ndax wàccoowul ak mooma Ismaïla mi nga xam nekk ci club bi di Watford club boobee dem na deuxième division Manchester United ak Chelsea ak Manchester City ak Liverpool ñooy dem Ligue des champions ci club yi nekk ci Angleterre.